bi yàlla dogalee président ma dikkee am ay jafe-jafe man mii ak sëñ Moussa Diop jël nañu suñu tànk dem seeti xalifa général des Mourides ak Cheikh Abdou Bara Dolly ak Mamadou Diop Decroix waxtaan ak ma dikkee waxtaan ak Omar Sarr woo Abdoulaye Wade waxtaan ak moom woo Karim wax ak ñoom ñoom ñëpp woo nañ leen wax ak ñoom suñu bëgg-bëgg moo doonoon ma dikkee retiré wu bàyyi loolu des ci biir jiite groupe parlementaire PDS continue ndax mu bëgguñu kenn ku dema bu ñu sañoon ñëpp des ci biir parti ñu def suñu kem kàttan ma dikkee ne moom du bàyyi dafay continuer day ber candidature boppam mais bu beree candidature boppam ñun PDS la ñu ku ñuy tool ginnaaw yàlla Abdoulaye Wade moo ñu booleeg yow Abdoulaye Wade moo mu ñu boolee ak yow dund ko jëndee nit kuy wax nag dafa xamul